sëriñu Modou Lo bii di wuyoo ci turu Sa Touba est-ce que gis ngeen mystique bi nga xamante ne daal dina koy indi ci làmb tey jile dinaa wax mystique boobu fan la jóge laataa maa ngi leen di wax ngeen abonné bu dee gan ngeen ci page bi ndax fii mooy Tip Top Cas 221 lépp luy actualité lépp luy cas xew ci réew mi fii lañ koy daal di traité ba mat mbokk xarit am ni jàmm ni ki tey la Modou Lo doon def open press am yemook bésub anniversaire bul ne fang si Boy Niang laa du ko souhaité bul ne fang si Balla Gaye laa du ko souhaité bul ne fang ki nga xamante ni Gris Bordeaux laa du ma ko souhaité na ñëpp xam ne Modou doomu dëkk bi la Modou Lo doomu parcelle la ñu souhaité ko gudd fan ak wér-gu-yaram ndax Modou Lo doomu réew bi la mbokk yi combat bii mystiquement la nar a jeexee li tax ma ko moom moo di booy Niang si bakkanam la ko teg Modou Lo si bakkanam la ko teg Modou Lo mu ngi entraîné Boy Niang mu ngi entraîné Modou Lo dugg na Pikine am fa ndam duggaat am fa da koy jaral nag mu làbbaliwaat ko ndax dañu la mu saf kaka ma xam booy ñaa ne ko il y a jamais deux champs trois daan nga samay mag daan nga mëru Pikine waaye si man ngay teeralee ñëpp di wax naan moo duloo dafa min Pikine booy ñaa nag loolu la bëgg dindi moo tax booy ñaa lu combat bi laaj dina ko ci def booy ñaa nee na bu dee xeex dina xeex bu dee bëri dina bëri Modou Lo bu dee xeex dina xeex bu dee bëri dina bëri ñoom ñaar nag fan lañ gën a mënantee sëriñ yu bëri ne si mystique bi ku ëpp mystique rek di nga mën sa morom ci benn côté ndaam bëri nekkul mystique moo ko yor à cent pour cent mais parfois nag defaru da ciy baax léeg-léeg nga mën a génn ci yenn combat yi Boy Niang bu daanee lan moo koy xaar ci làmb Modou bu daanoo lan moo ko mën a xaar ci làmb ndax jamono bi rëg-rëg muy ñëw booy tamit ñu ngi ñëw te lañu ne làmb xale Boy Niang tamit bu daanoo est-ce que dina yomb mu yéegaat ndax moom tey ay moroom ñoo fi nekk di daan rëg-rëg Sa Thiès ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk mën na ma wax sa xalaat ci commentaire yi jàngeen jëf